mais li am solo solo may mun a mooy dinañu tëggaat justice bi maanaam les institutions dinañu tëggaat justice bi dinañu dinañu tëggaat assemblée nationale d'abord changer mode élection wu assemblée nationale ah bon d'autres waaw waaw ay député wu ma Masamba député wu ma demba picc bu jóg nekk député mode élection bi lan lay doon déedéet député da nga war a am da nga war a représentatif dañ la war a tànn même bu doon am liste proportionnel ça doit être réduit vraiment au minimum parce que ni ngi lay dafa yomb ku jël dugal la ci liste national rek nga dem buuxante jàll boo ñëwee yow tu vas tu vas représenter qui celui qui t'a mis sur la liste joxaat assemblée nationale dooleem googu noonu ñu xam ne askan wee ko fol muy mën a légiférer muy mën a contrôler l'action de l'État dafa bokk ci suñuy biir mais pour fair une gouvernance saine et vertueuse pas ci ay promesses il faut rendre les organes de contrôle autonomes il faut les extirper de la présidence ñu ma parce que liggéey bu mucc ayib la ñuy def IGE cour des comptes et tout ana rapport yi ana rapport Covid et mais lan moo tax ñoom bu ñu defee nag OFNAC. nag mën na transmettre. mais euh, parce que ces ces conclusions. au procureur parce parce que xam nga lu tax. parce que day fekk encore une fois nga rénover justice bi ba nga xam ne OFNAC ak ñoom IGE ak ñoom cour des comptes bu ñu defee seen liggéey benn ma Massamba du mën a taxaw ne maa jël samay conc ak samay dojor teg ci. ça veut dire gis nga loolu boo ko defee El Malick bu ñëwee au pouvoir balaa muy randal. dina réfléchir bu baax. ça veut dire que bu boobaa euh, parquet bi dootul défendre ci ci chancellerie bi. c'est-à-dire. ba ba euh, ba ñuy soupçonner une immixtion. Euh, mënuma ñëw ne la mënuma ñëw ne la de manière tranchée nii lañ ko defee. parce que nag ku ne da nga koy bàyyi la mu nekk on a fini notre programme. yaay y a eu une commission juridique qui a travaillé ci ni mu ko xalaat te bu ñëwee tamit dañ ci ànd ak les acteurs de la justice. pour mën a def ces réformes nécessaires am na ci lu bëri loo xam ne déjà dans les assises nationales mu ngi ci woon te dañ ko ci puiser